valeurs yi ñooy def seen doom ëmb. parce que munoo ne sa doom moom mu ñëw danga jox sànq beneen version man version bi may indi sa doom ñëw na la kii laa bëgg nga ne ko ala kuuli ñun sañu waa euh, euh, euh, sañu waa kii fi ñu bokk kii mënu leen sëy waaw ñun fi ñu nii kii mënu leen sëy xale bi ne leen man ñeen may ma kii bañ ma may kii kii laa bëgg ñeen continuer di bañ mais dara bu fa amee responsabilité bi kal ndax xale bi rek la wala ndax parents yi am nañ si responsabilité ndax loolu valeur la boo xam ne nit ki bu fekkee da nga ne yow nit rek nga tu es un humain yàlla moo ñu sàkk jur ñun ñëpp sa doom bu jigéen ñëw na la man papa kii laa bëgg. te bari na fi man bëgguma ko. nga ne ko man bëgguma ko. Ah. loolu rek anti valeur la boo xam ne dañ ko banaliser Sénégal te loolu yàq na xale yu bari te seen papa yi ñoo leen ko teg wala seen yaay yi. boobu daa fekk ñu bëgg a yàqu. comme li may wax chaque fois père li nekk sa xol. Mhm. ak li nekk sa xolu doom bokkul. yàlla ku nekk dafa defal xolam. Ah. yow mhm. ni ngay bëggee ak moom ni muy bëggee ça fait man li may gis ak moom li muy gis nag. moom li muy gis. bu demee ba gis. ak yow li ngay gis. ay waxtaan la. waxtaanuma. li ma gis maa ko gis d'accord léegi. kii li ci moom xam naa ko léegi léegi dafa naan léegi valeur yooyu Safia. Mhm. nak lañ ko mën tuddee. parent boo xam ne nee na du communiquer ak doomam moom rek mooy décidé bañ a communiquer ah non parce que li ma la tegal dafa leer dama la ne sa doom waaw bu fekkee dafa am koo xam ne dafa ñëw ne la papa waaw man kii dama ko bëgg waaw bëggeewu ma ko ndax parce que dafa bokk ci xeet bale dama ko bëgg parce que yàlla moo ñu sàkk ñun ñëpp boo ma ko mayee moom laa bëgg boo ma ko mayul moom laa bëgg yow ngay continuer sa valeur dina non non fii man wax mais xoolal waxuma dafa bokk ci xeet de mais encore ah, am na loo xam ne moo tax dooy may sa doom ah waaw mais bokkul si ay ah, bokkul si ay kii diw fii la bokk diw ah. kii fii la bokk ak yooyu bokkul si yooyu déedéet xeet non non ah, bokkul si xeet ak tëgg la wala ab géwél la wala affaire bi waaw d'accord léegi man damay takk géwél ak tëgg non wax ma loolu dama ne waaw dama la ne bonne valeur kon la sa doom di ñëw ne <laughs> la man kii laa bëgg nga ne ko doo ko ko may dama koy xool xam ko topp ko démb ak bërki démb xam ne ñii démb ak bërki démb yow sa doom bëgg noo koy toppee waaw mais déglu ma yaa ma laaj dan valeur ki mu bëgg. Mhm. waxuma la moom mais maamam xam naa ko ñoo màggandoo wala baayam xam naa ko ñoo dëkkandoo wala ndeyam xam naa ko wala ses arrière grand-père xam naa ko. mais waxuma ko maa ngi ñëw sama bàyyi ma ñëw. c'est parce que topp naa ko di ko topp di ko topp ba xam ne ñii démb ak bërki démb daaw lu may nit ndox ñu koy naan kooku duma leen dugal sama askan dina lakkeek du lakkee duma ci dugal sama loxo oh. li may wax nag kajoor xam ngeen ko. Ah, non attends d'accord. su la nga ma man sama ah, bopp lay wax ak ñii d'accord ma daane ah, tontu na ma tontu li may wax mooy. moom anti valeur yi nga xam ne ñu banaliser. waaw moom daf ko gëm. muy lu mel parce que su toogee ne ma. waaw moom topp na doomam. ki muy bëgganteel. waaw parce que xam na yaayam. waaw xam na papa ay xam na ay maamam. waaw may ma ma yegg rek xam naa maamam waaw. mun na xam ay maamam. waaw te moom. waaw ak ñooñu bokk ñu jikko. yow yaa gàtt yaa gàtt xam-xam. waaw jërëjëf man li ma lay wax ñi seetaan dinañ xam lu wuy ma bilaay sama ma ne ma ne nit mais xam nga ko ko nit xamu yow ma nit dina bokk na li ma wax man bu fekkee dañu doon tam ay papam ak yooyu ah, man ma bu fekkee dañuy tam ah, ay maama tamaat ne leen ay ñuy dëmm lañu affaire yi Sénégal kuñ fi tam tu es pauvre je li ma fi tam rek bu fekkee fa nga ne roofee fekk laa la jox ci loolu ma jox la beneen exemple boo xam ne si ñi nga xam ne man dama koy banaliser si li nga xam ne Sénégal dañ koy gëm benn laa la jox tu vois mooy sama doom après dinañ si dellu si. moo koy dugal xam naa ko. li ma la wax dafa am mu am benn jabar. Mhm. jékki-jékki amul moyen takk ñaareel. Mhm. mu takk ñaareel. ok yàlla la. Ah, may ma ma yeggali xamoo fi ma jëm. bu takkee ah. ñaareel. Mm. parce que jabar comme ni ma koy waxee ak polygamie ale la ko yor du yàlla rek yàlla yor na ko mais ale la ko yor. alal yoru mu jékki-jékki. alal yoru ko waaw d'accord ma yeggali mu jékki-jékki ñu gis ne kii vie am mi ngi baissé wu Mm-hmm. ne ko yow ki nga takk deuxième ku ay gaaf um, la um. mm-hmm. moo la um c'est vrai man valeurs yooyu laay wax de valeurs banaliser te mm-hmm. ça n'a en pagaille au Sénégal mais il vont pas réfléchir ne kii bi mu yoree benn jabar li mu doon fayee ko xaj na si ñoom ñaar mais takk na deuxième il peut plus rek famille am tam tam tam deuxième bi mu takk ne yii kii jabaram bi dafa ay gaaf fekk seen doom moo ko def donc daf am na yoo xam ne mi ngi si réew mi loolu la ñu war a banaliser ka topp père di wax ay caga du comme ni mu koy waxee ku sëy ba pare du ko may sama doom affaire yooyu yooyu yooyu mooy valeur yi nga xam ne dañ ko war a jël Sénégal teg fële parce que amul sens d'accord d'accord Ben dañ ñëwaat ci yow Marina sama waxambaane du ko jox cagam ñetti waaw Safia donc pour revenir rek